Euh, Ousmane Sonko Guy Marius Sagna euh, ces gens la c'est des c'est des personnes d'honneur euh, loolu moo leen indi au pouvoir c'est-à-dire seen seen seen dañoo dëggu bi mbir mi amee xooluñu seen intérêt bopp jéemuñu sax jël dossier pour politiquer ko no socialement lañ ci intervenir bi ñu ñëwee xool nañu Ousmane Sonko est un est un cadre des des impôts et domaines dem na lijjanti ay kayit ba génneel ñu ñun li lépp loo xam ne ñun xamuñu ko sax ci terrain bi procédure bi ni mu demee lépp tout était illégal aujourd'hui il est venu au pouvoir boo ma ko waxul sax ñun am ñu yaakaar ne moom ci boppam bu toogee dina li ci war dina ko def mm-hmm. encore une fois euh, terrain bi et c'est pas la première fois que ça se fait mm-hmm. ay nit dëkk ci kër état du Sénégal dem ba jël terrain di ko morcelé di ko joxe ñu jox leen seen kër yi li ci des ñu morcelé ko jox ko ñeneen loolu du fi gulee léegi ci seen combat bi est-ce que vous avez senti le soutien de l'armée parce que yaa ngi wax ne que Comico du euh, ça n'a rien à voir ak l'armée Pape Malick loolu lay bañ a dégg mais yow yaa ah ngi insister ci loolu léegi moom dangay éviter dangay wax di éviter ñooy demee ci lañ bokk waaw léegi euh, léegi est-ce que vous avez senti le le l'accompagnement de de la parce que vous êtes des militaires vous vous avez été des militaires euh, vous avez servi avec honneur euh, man quand je je parle de vous je suis je suis très mais non est-ce que si situation bi ngeen di traversé nii l'armée Euh, won na leen au moins benn benn benn soutien. mais sëñ bi euh, booy wax armée encore une fois euh, dama bëgg ngeen xam ne mbir mi du mbiru armée. du mbiru armée mais il s'agit des agents de l'armée. j'en waaw loolu du mbiru armée la hmm. preuve. l'ancien SEMGA bi fi nekkoon moom ci boppam moo moo defar ay ay ay joxe avalam discuter recevoir ñëpp discuter ak kii pour ñu régler problème bi à l'amiable du mbiru armée fii may wax ak yow nii li li ñu def terme sud. donc donc boo duggee bi non boo duggee armée sa fait excessivement mal aux militaires aux gendarmes. Okay. des gendarmes ont pleuré le jour du déguerpissement parce que li ñu leen gëm la woon ak li ñu fekk sur le terrain c'était diamétralement opposé il s'agit d'un d'un d'un d'un scandale politico-militaire c'est des civils et quelques militaires qui se sont associés pour pour exécuter cette forfaiture du loolu li loo xam ne la lu yomb a régler la lu ñu war a régler la dégg nga fii nii ah, la preuve fi may wax ak yow nii concrètement fi may wax ak yow nii ana kër sont les maisons les maisons ont été rasées comment euh, ces, euh, ces maisons ont été rasées par qui et pourquoi au moment où l'État ci boppam jëloon na ay dispositions pour que chaque famille rejoigne sa maison d'origine kan moo ko rasé Comico wala on nous dit que c'est l'armée qui a rasé cette c'est, en fait pas même pas l'armée c'est des militaires qui ont rasé cette maison ces maisons attends, non écoutez terrain bi à quel titre non, ils attends, vont ces militaires là ils vont. waaw déglu moo tax ma ne la. Euh, rien de en fait euh, de républicain ne se ne ne s'est passé sur ce dossier. parce que quand ce le, le ce, ce truc a eu lieu nous en tant que collectif nous avons été reçus par le maire de Ouakam. Mm-hmm. qui nous a signifié que moom ci boppam il n'a pas été associé à ces, ces en fait ces deux ces démolitions. un patrimoine bâti de l'État ñu koy démolir. c'est parce que l'État dans une une commune non attends l'État n'était pas associé le le maire nous a fait comprendre que même le directeur des domaines n'était pas euh, informé de cette situation la présidence de la République a été saisie de cette affaire moi en tant que coordonnateur un conseiller de la présidence m'a appelé et est venu jusque chez moi je l'ai reçu il m'a posé des questions je lui ai tout dit nee na ma présidentielle de la République avait sommé à l'arrêt de de ces démolitions là c'est tout ce qui s'est passé encore une fois mën naa la wax ne euh, disons fii du waxam quoi et puis loolu day yàq deru Sénégal mm. day yàq deru Sénégal